lislaamaa ngi jooy jugleen daalal ko lislaamaa ngi suux jugleen suuxat ko lislaamaa ngi jooy jooy jugleen mooy nga xool mu bëggoon nga bëgg nga xool mu bañoon nga bañ ko te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lim gën a bañ ci àddina mooy shirku billahi te ñun tey nag sujet tabu la daanaka nit ñi sax buggatuñ kuy wax ba yegg ci affaire shirk ñu bëri dañ koy tëb jàll su fekkee ne nit ñi mënuñu dugg ci détails yi warugar la ñu ñu junj attirer ci attention nit ñi parce que suñu cofeel ci yonent bi li koy dëggal mooy xeex li mu doon xeex saxal li mu doon saxal loolu mooy dëgg tey ñun ñëpp bu ñu xoolee suñuy wax suñuy jëf suñu yenn comportement dafa fees dell dell dell dell ak bokkaale façon boo xam ne dafa jéggi dayoo ànd ak loolu yëpp ñu ne ñun ñoo gën a bëgg yonent bi loolu loolu tanaqut la bu rëy a rëy kon point boobu laa bëgg a wax ne dafa bokk ci ni ñuy nattee ku bëgg yonent bi mooy tawxiitam almuhibbu alsaadiq li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yuwaxiduhu yuwaxiduhu kama kama waxadahu arrasul wa sahabatuhu alkiram loolu mooy li ëpp solo yeneen yi ci des yëpp nag ay détails almuhibbu saadiq li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam dafay daw bokkaale ak mbooleem forme bokkaale yi moo xam ci wax la moo xam ci jëf la moo xam ci comportement la parce que nag li kulli maqaamin maqaal bu ñu teewee ci yu mel ni ci jamono yi di wax ci yonent bi nañu xool fi feebar bi nekk ñu joxoñ ko sinon dañuy trahir mission bi actuellement li ñu war a wax population bii mooy nañu wax ak ñoom ci tawxiid tawxiid nit ñi waxatuñ ci nañu wax ak ñoom ci sunna sunna nit ñi waxatuñ ci nañu leen moytu ndikuloo bokkaale nañu leen moytu ndikuloo biddaa thème yooyu mooy priorité parce que yeneen thème yoo traité yu dul yooyu yooyu naafila la rek mais lii mooy farata ji donc suñu bëgg ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li koy confirmer mooy tawxidul ilah tawxidan awalu ma yajibu ala almukallafi tasxihu imanihi bu loolu jàllee ñu jàngal nit ñi kan mooy yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonent bi mooy ki gën a màgg ci mbindeefi yàlla yi yàlla moo ko tànn def ko mu nekk ki gën a màgg def ko muy nit ku mët ki loolu yëpp daf koy prépare pour mu nekk royukaay sur tous les plans parce que royukaay dëgg-dëgg dafay mët boo gisee ñu naan julli di nañ leen jàngal yonent bi jàngal leen màggaayu yonent bi parce que dañoo bëgg lu dul yonent bi tuuti ci say bët su boobaa ci nga koy mën a def royukaay waaye su fekkoon dafa mat ci côté bi manqué ci côté bi da nga naan naa dem seeti ki mat ci côté bi mais yàlla moo bañ moo lànk moo bëggul kenn mët ku dul yonent yàlla muhammad ndax mu mën a nekk al qudwatul kaamila mbindeef lu mu rëy rëy ci sa bët boo ko xoolee am na fu mu manqué ba mu des yonent bi sallallahu alayhi wa sallam màggaayam boobu nga xam ne mooy màgg gi dëgg-dëgg ci la ko defee al qudwa al mu nekk royukaay bi nga xam ne mën nga koo roy ci lépp su ko defee da ngay xam même booy ànd ak borom xam-xam même booy ànd ak ab sëriñ wala ab jàngalekat da wan rek yonent bi parce que moom daa manqué moom matul parce que dundam am na vie privée parce que su matoon du am vie privée mais ki nga xam ne moo mat léppam la ñu war a roy kooku amul vie privée mooy yontu yàlla muhammad léeg-léeg dinaa ko wax dama ne fii bu ñu lay wax sa màggaayu sëriñ ak sa mbaaxaayu sëriñ mais kenn du la wax nam doon sëy ak ay soxnaam bis boo fi waxee ab sëriñ ba tudd nam doon def ak soxnaam bu soobee yàlla Sénégal dinañ dinañ fudd sa ndigg parce que kooku ñu lay jàngal daa matut dafa am loo xam ne du si sa royukaay ak leer maanaam yonent bi ni mu nekkee royukaay ci lëm ak a leer waaye ñàkk jàng ak ñàkk tawfiq mooy dugal nit ñi ci yenn détails yi yow xoolal yonent bi rek lañ moom rek ñëpp toog ci jàkk ji ci jumaa ji ci marché bi fépp ñu ne la yonent bi kat suñu ndey Aïcha nee na dafa tere góor di joteek soxnaam ñëw rek commencé yaay Aïcha ne yonent bi bu daan joteek soxnaam nii lay def nii lay def nii lay def di la ko détaillé loolu ñeme nga ko wax sa ustaas wala ilimaan bi wala sëriñ bi parce que ñooñu dañu am vie privée parce que nekk ñu royukaay dañoo manqué yonent bi nag hadiya la moom léppam la ñuy wane sallallahu alayhi wa sallam c'est clair ah leer na naññ naññ naññ naññ wallahi en tout cas man de man man moom nit mënatul rëy ci sama bët ba ma yàlla xamalee yontu yàlla muhammad li ma ci xam keneen ku ma jël rek lu mu lu ma ko jàng-jàng rek day mujj tuuti ci sama bët parce que nag wolof nee na ku ku yéeg ci ñay ba wàcc ko loo yëgati xeet ko julli dinañu fexe ñu xam yonent bi mu màgg ci seeni bët Muhammad Iqbal rahimahullah dafa jóge Pakistan dem Europe Angleterre almaañ jàng lépp ñëw doctorat ci falsafa doctorat ci qaanuun doctorat ci siyaasa dégg nga diplôme bu dul bu jinne mu ñëw indiku bi mu ñëwee soppeekuwul ndax mu meloon ba muy dem Europe soppeekuwul te xam nga loolu jafewul jafe na bari na ñoo xam ne bu ñu demee Europe rek dañuy soppeeku ay complexe lañu milieu bu ñu dem rek ni milieu bi mel la ñuy mel iqbal bi ko journaliste bi di laaj na ko nan nga def ba xam-xam bii nga am ak daraja jii nga am dem Europe ñëw soppeeku mu ne ko waaw dafa am lu tax laataa may dem Europe sama baay di Cheikh Mouhamad nuur dafa ma jox benn tusngel na ma tusngel bii nag madinatu rasulillahi la jóge jëlal tusngel bi tusngel ci say bët mu ne képp koo xam ne dangaa jël tusngel bu jógee madinatu rasulillah nga tusngel ci say bët loo xoolati mu tuuti ci say bët te moom kat loolu waxu philosophe la c'est-à-dire baayam wan na ko yonent bi jàngal na ko màggaayu yonent bi jàngal na ko sunnas yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ana ñaata nit tey ñooy tusngeelu boo leen laajee ñu ne lii sunna la waaye waroon nañoo taxaw foofu li Iqbal wax tusngeelu boo koy def c'est parce dara waratul a rëy ci say bët lu dul yontu yàlla Muhammad mën ngaa wormaal ñëpp nag respecté leen bëgg leen waaye ñun approche bi ñuy jàngale yonent bi wallahi dafa des dafa des dañuy jàngal ci yonent bi loo xam ne kenn duñu ko laaj bés li nga xam ne moom la ñuy laaj nag ci biir bàmmeel duñ ñu ko jàngal moo tax faw ñu delsiwaat màggalaat yonent bi sallallahu alayhi wa boo ko màggalee dara dootu la jaaxal jamono yi maa ngi jàng Cheikh Mouhamad Hassan wul du daddu wul du daddu tey nee nañ min aalami ahlil ardi al yawm waaw bokk ñi gën a xam xadisu rasulillah ci kaw suuf si tey ci la bokk mooy allaamatul Mauritanie ñëw na fii bi Cheikh Qaradawi di ñëw Sénégal bi mu doon ñëw fii ci foire ba moom moo présider conférence bi ci jamono Abdoulaye Wade maaruuf àddina bi ñëpp ko xam damay jàng ñu ne dafa dem ci dëkk Amérique yi dem ci benn dëkk ñu yóbbu ko ci benn montagne muy visiter montagne bi ñu ne ko montagne bi jabalu seytaan la tudd jabalu seytaan nee na fi ñu ne ko montagne bi jabalu seytaan la tudd rek xelam dem ci Uhud jabalu Uhud xelam dem ci tawxid bi yonent bi jàngale rek cofeelam ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dal di yëngu mu def foofu benn xasida boo xam ne xasida bu rafetee noonu ci ci tagg yonent bi daanaka néew na nga gis ko bu wax bu waxtu bi xatul woon dinaa ko tari ah ndigal la <laughs> waaw Cheikh Idris xam nga comme daf ma napp bu yàgg moo tax lu may def damay laaj ndigal la xasida bi xelam dafa dem ci Uhud ci saasi rek mu ne xubbika yaa xayra xalqillahi ma nafida wa ma tawaqafa yowman ma wala barada ma zurtu daaraka fi shawqin yuarriquni illa tazaayada indi shawq wattaqada wala ara jabalan fi l ardi munfaridan illa tazakkartu mushtaqan lahu uxuda wala raaytu jabalan fil ardi munfaridan illa tadakkartu la lahu uhuda parce que jabal bi nga xam ne montagne bi nga xam ne moom lañ tuddee jabalu seytaan looloo tax xelam dem ci Uhud mu ne montagne bi nag Uhud la koy fàttali parce que yéen ñëpp xam ngeen ne lépp lu yàlla bind montagne yi sax dañoo bëggoon yonti yàlla Muhammad waaye nag montagne yi daf ci am benn montagne boo xam ne daa amoon relation particulier ak yontu yàlla muhammad muy montagne yu uhud mu ne uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu montagne uhud bi daf ñëw bëgg ñu bëgg ko maanaam montagne bi ak yonente bi dañoo bëggante woon moo tax cheikh mouhamad hasan wuld dadu wala raaytu jabalan fi l mun munfaridan illa tadakkartu mushtaqan lahu uhuda alaysa kadalik waaw mu fàttali ko kii bi léegi xam nga jullit saa yoo sa yëngatu sa sa cofeel ci yonent bi ni kem ti ni muy yëngatoo rek noonu ngay gën a amee engagement ci diine noonu ngay gën a jaayanteeg yonent bi sallallahu alayhi noonu ngay gën a jaayantee ak sa boroomam sa borom comme shawqum ci yonent bi yëngatu na rek mu mu continuer ab yaa di ne wala raaytu jaa wala raaytu jabalan fi l ardi munfaridan illa tazakkartu mushtaqan lahu uhuda walan azala bi jeyshin min juyushikumu li nasri millatikum asmu bihi suada engagement baa ngi noonu mu fuma fu ma gisati wala mbooloomu mu ànd di liggéeyal lislaam dina adhéré ci mbooloo moomu bëgg yonent bi sallallahu alayhi sallam dafay jur ci nit engagement kemtilaay ni ñuy bëggee yonent bi noonu lañuy bëggee l'islam kemtilaay ni ñuy bëggee yonent bi noonu la ñuy defee sacrifice kemtilaay ni ñuy bëggee yonent bi noonu la ñu di jaralee suñu bakkan jaral ñu suñu dund jaral ñu suñu alal fekk mbëggeel gi yeggul foofu rek mbëggeel gi des na walan azala bi jayshin min mu li nasri millatikum asmu bihi suada fallahu aataaka fi xalqin wa fi xuluqin min alfadaili ma lam yuctihi axada wa jammaca allahu fiika alxusna ajmacahu wa tahara allahu minka alruuxa waljasada qad fuqta alxalaa'iqa fi xalqin wa fi xuluqin والمرسلين على ما هم به سعدا قد فقتهم كلهم قربا ومنزلة وفقتهم زمنا وفقتهم بلدا وفقتهم أدبا وفقتهم حسبا وفقتهم نسبا وفقتهم ولدا وفقتهم شرعة جاء الكتاب بها مهيمنا ناسخا بالحفظ منفردا وهكذلك هذه الأبيات جميلة جدا جدا أه؟ waaw noonu noonu noo koy toppee parce que mazaaya yi yàlla jox yonent bi yëpp moom la tënk ca fin ba mu ngi koy wax naan ko law baalaga ash-shu'araa'u fi lmadxi ajmaahum lam yablugu minka mi'shaara alladi xumida law baalaga ash-shu'araa'u fi lmadxi ajmaahum ne na mboolem poète yi ñi la mos a tagg démb ak tey ba ba àddina di tukki lu ñu tagg-tagg fukkeelu sa dayoo sax joxaguñu la ko noonu mooy bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa feneen fi mu ne maa qiila madxun li maxluqin yunaasibuhu illa wa anta lisa awla bihi abada nee na képp ku tagg nit tagg wan ko tagg bu dee mbaax goo gis ci moom la yàq nga ko parce que ki nga ko waroon a tagg mooy yont yàlla muhammad parce que mooy ki baax waaye kooku tey mbëggeelam euh, daj na àddina bi xam parce que mbëggeel dafay def nit ki nga nekk ku positif bëgg yonent bi day jox nit xam-xam bëgg yonent bi day jox nit fit bëgg yonent bi day jox nit jom bëgg yonent bi day def nga nekk ku efficace bëgg yonent bi day tax nga mën a influencer xol yi bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da ngay montagne yi suñ taxawoon ci sa kanam sax dangay dem da ngay jàll donc Cheikh Idriss li nga waxoon ci yonent bi nan la jëflante ki noonam ak njuumte yi nga xam ne saxaaba yi dañ ko doon def dama ci xelaatoon ñaar waaye comme temps bi jeex na benn bi rek laay jël parce que wax naa ko démb si benn daje bu ñu amoon Cees ma ne ñun de lislaamaa ngi jooy jug leen daalal ko ngi suux suuxat jooy jooy ko